ba may boo caamen sama makkaan jëm sin hal bang may turne may huut si di mane fala siixu fay banjul mung may xemem loo ne abol fay du feeñ na soodaan si di mane siixoog manaan gént naa man bag bu ya mbuuti mbuudu bawoo xay bu jëm ci soodaan sidi baaraam man ibu ju fanko baay siixu wax ma bag ba garba mooy kosse ndax ma présentel garba sidi baaraam man siixoon ko naan ker bu sufle nit ba bandoor mene bariya teew fa garba sidi baaraam ma lii la wax tarbiyu leen xam yàlla helimaanu faydu ba ñëw na tarbiyu leen xam yàlla helimaanu faydu ba ñëw na tarbiyu leen xam yàlla helimaanu faydu ba ñëw na tarbiyu leen xam yàlla helimaanu faydu ba ñëw na limaamu faydu ba ñëw na som na lankar ba ca koosi tarbiyu leen xam yàlla helimaanu faydu ba ñëw na gudda kurusu rëy kaala taxoon nga xam la fa góor ga tarbiyu leen xam yàlla helimaanu faydu ba ñëw na jàngal la walla saani taxoon nga xam la ca góor ga tarbiyu leen xam yàlla helimaanu faydu ba ñëw na ni mu màggee xajul ci biir dund max joob tar bi yu leen xam yàlla xilimaan fay di ba ñëw na baatu ni mu neexe moom lañ bañee jalangoor gi tar bi yu leen xam ba ñëw na fa ngeen tegoon seen bopp hàggu leen fa aji riir ngeen tar bi yu leen xam yàlla xilimaan fay ba ñëw na xamut danga war a gàttañ lu laaj ku xam ba mu wax la tar bi yu leen xam yàlla xilimaan fay di ba ñëw na xamut dangaa war gàttañ lu laaj ku xam ba mu wax la tar bi yu leen xam yàlla xilimaan fay ba ñëw na noonu la ko wéyee mu ne jàpp leen seen kurus te di wirda bu leen di ŋaayoo luñ leen waxe na leen ne ngir sidi barahama ku jàpp wirda ci baay bam jox la ci nga ne la moom doo doo wala kana bokk suñu weeroo nañ jàpp wirda ci baay ndax yàlla tam ñu ci moom yàlla buñ ñu fase gile góor sidi barahama mbugal mu formi ci biir bàmmeel ñi koy xelaa naam xanaa dañoo yorul ngërëmal sidi baraham ku faatu tey taalibeem balaa ñu lay suturaal sidi baraham teewe loola jox la passeport juf Diouf lii la njëkk a wax fekk lim njëkk wax mooy te gukku saasa sama na ma laskandariya de fa garde im nu samba sidi bara mane falen gardi surrubu sihriyu ibnu samba Jufu ibu Jufa topp yonen sidi bar mane ndongoy barhama nyas way kat balen di denk ay mun munkuti bi ci bir kaddu sidi bar ma la refen njorta sen khatir yi ci yalla ta ngeen mandu kon ngeen dagu pi sidi bar mu njaw caam bismillahi tagunala fi sawalu sa wàllu junne qul wala doy sidi bar mana bokki siwal bokki kantora taggu ku saasa maa ngi pare dellu sidi bar amuna ñaanal len ma suma del siate nek di jama bayyi warlu len ma lolo gañi sidi bar mana suma faddo nañ morab ku saasa foofay ba fa omar keba Sidi Barahama nii la ko waxee Ibrahima jumu na yow xamoon nag ba pare dee sàmm ndaw lu daw yaram dof du wér ala nage mayo gayna ko ndaw ki yurmi nini kanga do sellata maya Sidi Barahama ala nage maya gayna ko ndaw ki yurmi nini kanga do sellata maya Sidi Barahama amana Serigne Aliou Cissé directeur la paase na commandant de moo leen di may permis waa kër Sidi Bara amana Serigne Mbaye Niass moo de député ca pays Sidi Baraam de ordal ba fa moom lay jaar Sidi Bara amana Cheikh Ibra Fall entrepreneur la mooy xaadi bara moo da doxal gaaya fa kër Sidi Bara amana Ousmane Ndiaye toog ca cadre ba moo leen di rappel de la wex bi yaama doy meetar Sidi Barahama ne Cheikh Omar Touré colonel la dëkkal militaire da yaa yor école yi waa kër Seydi Barahama ne baabu xawa hinga maqaama laa wex bi yaa foor de yaa da ingénieur yi waa kër Seydi Barahama ne Omar loolu laa maram gañe nga gëlëm ci yaa da signal pays yi waa kër Seydi Barahama ne Seexu Satu ñang nga sewetaas jaayante nga baay tampe nañ la malow loola Sidi Barahama ne Amadou Thiam Guinée woluwaayu kër gi ci biir géej gi yaada biram patey fadal hamidaanu jaaxaan Seydi Barahama ne yaada xotti gaal di dajji wenga kii ngay doxal gaal yi capitaine Selmax yaa ngi gaare seen gaal la Seydi Barahama demet baqaasi jeex Ibrahima Juufa ngay wax naan saxoo leen siyaare kada mokkal madina kër baay kunde du dellu naa sidi barahama saxoo leen a siyaare tada mokkal madina kër baay kunde du dellu naa sidi barahama la la ilaha illallah la ilaha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 لا لا لا لا لا لا لا لا لا kuros tey wirde bu leen di nga yoo luñ leen waxin na leen ne ngir seen kuros tey wirde bu leen di nga yoo luñ leen waxin na leen ne ngir siri barahama jàpp leen seen kuros tey wirde bu leen di nga yoo na leen ne ngir siri barahama jàpp leen seen kuros tey wirde bu leen di nga ci baay bam jox la ci nga ne lam doo perte doo wala kana bokk suñuy weero yoo liñ leen waxi na la neex ngir seeni baram nañ jàpp wir da ci bàyyi ndax yàlla moom yàlla buñ ñu fase gila góor seeni baram jàpp leen seen kurus tey wir da bu leen di nga yoo liñ leen waxi na la neex ngir seeni baram bugal mu for mi ci biir bàmmeel ñu koy xilaan naam xanaa dañoo yarul ngërëmal seeni baram jàpp da bu leen di nga yoo liñ leen waxi na la neex ngir seeni baram bugal mu for abulay sankro sayid abulay ni nga yow li ngeen waxi na leen ne ngir sini baraam may ku faatu tey taalibeem la passeport abulay sankro sayid abulay ni nga yow li ngeen waxi na leen ne ngir sini baraam may bu doon jaay wir dam de kon dana risque gaalam gi soxla hut wut paas xolu lu ñuy giiroo jàpp leen seen kristen yi dam leen di ngaayoo li ngeen waxi na leen ne ngir seen i baram ay soppul ku sopp àdduna soppul bara yaaki taa sim na sëriñu tëriyaa xolu ñu royoon bay fu ñuy xëcc nguur seetu trésor jàpp leen seen kristen yi dam leen di ngaayoo li ngeen waxi na leen ne ngir seen i baram ndang xoolul fu ñuy xëccoo nguur seetu trésor. jàpp leen seen kuréel tey wi doomu leen di nga yoo lu leen waxi na leen ngir Sidi Baraam. Sidi Baraam moo da ki nga xam ne moo da yombul mbaay. nguur ak përëm duñ ko weccee nguuru marjaano. jàpp leen seen kuréel tey wi doomu leen di nga yoo lu leen waxi na leen ngir Sidi Baraam. takka wurus bunti xaalis ak jamaa yi ca biir tambour misik yi ca biir naajul dafay niiso. jàpp leen seen kuréel tey wi doomu leen di nga yoo lu leen waxi na leen ngir Sidi Baraam. Sidi Baraam moo di kuura. courant courant day jox ak leer lamp bu ci xam leer courant la may leero jàpp leen seen crostin yi jàpp leen di nga yoo lu ngeen waxi na leen ne ngir sini bara am may lamp buñ tourné ci moom leer na leeram moo nga yoo lu ngeen waxi na leen ne ngir sini bara am may sool mbott ci biir du tere ñay waay naan lamp courant ngalaw du ko fay moo di bara am jàpp leen seen crostin yi jàpp leen di nga yoo lu ngeen waxi na leen ne ngir sini bara am may borom du ko man di jóg leen ñu taataan géeji meew yaa nga koo si ga day tóoro jàpp leen seen kolos tey def leen ni ngaayoo lu ngeen waxee na leen ne ngir seeni baraham may cool mbottu ci biir déeg du tere ñay du ko fay moo di baraham jàpp leen seen kolos tey def leen ni ngaayoo lu ngeen waxee na leen ne ngir seeni baraham may courant ba jar na ca sooke taal bambu gaar dëpp taal ba tamaar dee looti biir koose jàpp leen seen kolos tey def leen ni ngaayoo lu ngeen waxee na leen ne ngir seeni baraham may jaar na ca biir Sokone taal bambu gaar taal ba tambaar delloo ci biir Koussi. jàpp tey démb leen ni ngaa yoo lu ngeen waxee na leen ne ngeen seen i baram. Abdou bi tey ba tambaar Abdou Diassé bambu di roose ak leer jox sa weetaasu. jàpp leen seen koros tey démb leen ni ngaa na leen ne ngeen seen i baram. amul morom duun maas tabeem nga jéggi na yoon xolof sa daan nañu lépp déggal lu festuuru. jàpp leen seen koros tey démb leen ni ngaa yoo lu ngeen waxee na leen ne ngeen seen i ko def wujji ci muusoon da ngay farang moom baraama roose lak ler jox la sewetaasu jàpp leen seen kolos tey daamu leen ni nga yoo li ngeen na leen ne ngeen seeni baraam ay bu leen ko def wujji da ngay farag baay baraama roose lak ler jox la sewetaasu jàpp leen seen kolos tey na leen da ngeen xañaan tadi naafiq kañaan faqul mur yàlla xalak na leen yéen ñuy weddi kañaan fanqur muur yàlla halak na leen yéen ñi weddi barahama jàpp leen seen kuros tey ndam leen ni nga yoo lu ngeen waxee na leen na ngeen seeni barahama yi ku yel imaam balaa dee hal ku mbaamu wala kaana jëm ju lëndam du soobu ci leer gaañi barahama jàpp leen seen kuros tey ndam leen ni nga yoo lu ngeen waxee na leen na ngeen seeni barahama yi yoon nantu xool na ko muy say ko mu rabbi ba kontaan tampe juróom ñaari yoon jox ko signature jàpp leen seen kuros tey ndam leen ni nga yoo lu ngeen waxee na leen na ngeen seeni barahama yi noonu baraam hal ku ngeen seytaane bëgg na ci ci yéen billaa da ngeen dëkk jéeg iblis ci biir naare. jàpp leen seen crostin yi doomu leen di ngaa yoo lu ngeen waxee na leen ne ngeen seeni baraam ay. yoonu baraam al ku ngeen seytaane bëgg na ci yéen billaa da ngeen dëkk jéeg iblis ci biir naare. jàpp leen seen crostin yi doomu leen di ngaa yoo lu ngeen waxee na leen ne ngeen seeni baraam ay. bu salmaxa dina jàpp ko muy conducteur ku dugg a ne ngeen seeni baraam daawa de fanaani binaare jable tan kurustay dabule na leen ne ngir siri bara man basa talarda sant leen bur yàlla baabu laay fay na sodaan siri bara amal sant leen bur yàlla baabu laay fay na sodaan siri bara amay waana sant leen bur yàlla baabu laay fay na sodaan siri bara amal leen bur yàlla baabu laay fay na sodaan siri amay subhana man basar tallarda sant leen buur yàlla baabulaahi feeñ na soodaan sidi barahama subhana man basar tallarda sant leen buur yàlla baabulaahi feeñ na soodaan sidi barahama dànk leen rëgg ci seen xol yi mooy yóbbu iblis jahannama loolu wóor naa gaañi barahama subhana man basar sant leen buur yàlla baabulaahi feeñ na soodaan sidi barahama dànk leen rëgg ci sen xol yi mooy yóbbu iblis jahannama loolu wóor naa gaañi barahama subhana leen bur yàlla baabu laayi feeñ na soo daan la woon daf doon jàngal ñooñ xasamaan rëyam gaa ko xalak gëm leen gaañi barahama subhaana man basaatal la sant leen bur yàlla baabu laayi feeñ na soo daan si barahama iblis sëriñ la woon daf doon jàngal ñooñ xasamaan rëyam gaa ko xalak gëm leen gaañi barahama subhaana man basaatal la sant leen bur yàlla baabu laayi feeñ na soo daan si faat moo da jàmburoos mbot bu suufee lay taas si barahama subhaana man basaatal darda sant leen bur yàlla baabulaahi feeñ na soodaan siri bara amay ku yal kooba jàkk du ko faat moo da jàmburus mbot ci xol bu suufee lay taas siri bara amay subhaana man basaatal darda sant leen bur yàlla baabulaahi feeñ na soodaan siri bara amay sàkku leen xam bur bu leen poosel machine ngeen da dox sakom neen du taxaw gëm leen gaañi bara amay subhaana man basaatal darda sant leen bur yàlla baabulaahi feeñ na soodaan siri bara amay sàkku leen xam bur bu leen poosel machine ngeen da dox sakom neen du taxaw gëm leen gañi barahama subhana man basal kala da sant leen bur yàlla baabu lay feeñ na soodaan si di barahama sàkku leen xam bur bi dend suuf si wiise asamaan dun bi kenn ndoor la gëm leen moo di barahama subhana man basal kala da sant leen bur yàlla baabu lay feeñ na soodaan si di barahama sàkku leen xam bur bi dend suuf si wiise asamaan dun bi kenn ndoor la gëm leen gañi barahama subhana man basal kala da sant leen bur yàlla baabu lay feeñ na soodaan si di barahama atum naag lu doy di li ci biir dem ku ci topp sa nafsu balaa ngaa dee rëccu gëm leen nga ñu war a xam. subhaana man basa kàllaat na sant leen bur yàlla baabu laahi fañ na soodaat si ne war a am. àddina baagam caax la duy fañ mar da ngay root ba dee muy tuuru ngay rëccu gëm leen nga ñu war a xam. subhaana man basa kàllaat na sant leen bur yàlla baabu laahi fañ na soodaat si ne war a am. loolu faydu ku ca xasoo bu melal ni ku dee niw bu yëngu fan wa jeexul nga ñu war a xam. subhaana man basa kàllaat na sant leen bur yàlla baabu laahi fañ na soodaat si ne war a am. yoonu faydu ku ca xasabu melal ni ku dee ni bu yëngu fan wa jeexul gañi barahama subhaana la sant leen bur yàlla baabu lay feñ na soo daan niw bu dee bañ taxaw di ko tàggee muy jóg di ti sooli dóoral mu dem tool ya deewal sedi barahama subhaana man basatal la sant leen bur yàlla baabu lay feñ na soo daan silima ama niw bu dee bañ taxaw di ko tàggee muy jóg di ti sooli dóoral mu dem tool ya deewal sedi barahama subhaana man basatal la sant leen bur yàlla feñ na sodan sidi bara amma subhana man basal tallarda santo len buri allah babu layi fegna sodan sidi bara amma subhana man basal tallarda santo len buri allah babu layi fegna sodan sidi bara amma harifina ya rabbi bara mala ber man be alan wari mode sidi bara amma sidi harifina ya rabbi bara mala ber man be alan wari mode sidi bara amma man illi mai waye kifirau ki ñëpp naw dëppoo ko naw roy ca naar ba mooma raw waaye topp naa yoon wa mu xaw waaye topp naa yoon wa mu xaw ci tagg maam astami xaw jigéen ñi baax ña xoon ba faw ngir booba hen duñ ko ca xaw maam astu jànqa gore maam astu yaay ñayu xare yaay ka mu muñoon ba jooy ware looloo waral tey ñoppure maama soy géeju mbambulaan ndoxom mi neex naay walangaan jigéen ñu roy leen tey dagaan na ci moom boroot seeni bagaan maama stu jànqa mooy kënu balam yemoo dem ba kënu toj xoli manqat sa kënu ba kënu soxna say kënu maama stu matal na mboolee mi dawaar mbiram tolla raw na waar kii him kii waar matal na xaqi boromam set na ci moromam matal na xaqi sëriñam sangam ba mooy borom këram looloo waral mu noon ci moom maam astumi lay gan ji doom di donnu mbóot ma moom faydum ba ngir moo mama sami ay ganjaram la jay jëndee ko am jarama jayante nak borom kërëm matal ko làqee ngaramam mo leyal borom kërëm ba am tiraa nga xam ngërëm te jaamu bur bi boromam ba tax na doo gis moromam jox na ko léppi halalam ngir doom ju baaxam barke xam waaye jëmmi barke xam la xam ba lex miraar jeexee xatam maam astu jànqa mooy ngalam xayma jafoor na ay lamama duñ ko xaymaa ki përëm te duñ ko jaayee ay dërëm maam astu jànqa fam soso ab nen ca ñoom soso mooy junne cuuj ba ca soso te duñ ko xaymaak lam soso njaaraama soxna asta yow sa doomi doom ji foo ci dun bi fekk leen ñu raw yaa barka njànqa maa la naw maamastu jànqa yaayi baay ki baayi doom yaa seeni baay moo for garaat ko we medaay ngir mos sa def mbaa lu haay maam astu mooy nawet bu bees lool lim ba xoom na sàq fees nooraan bi xiif lekkal mu rees démb la woon na lu wees maam asta mooy yaayi karaw kawe ca gaayane karaw ka boole ñaari buum ya mu mel ni soowa kam karaw shariatoog xaqiiqatu ak ilmu ak maarifatu ak rusdu ak wilaayatu ci jenn yaay ji mooy sëtoo maamastu jànqataari xammaam xellente woon ma gis ko ba nettali leen ay mbiram ci ay xibaare sax-saxama man digg naa ak ndawam njànqata daan muru salaama ba mag ñi naan kile mbiram ak nim dawee def ñoolam te daawut foni ay gune da daan sikkar fu mu mën a ne ndax xut bu fu mu war a gane fokk mu doon fu mu mën a ne kenn masta gis maam asta wax ci kaw ci ay sikkar la sax te masta reeba rekku sax te masta yandoor ngir nasaxam sange jigéen yiñ fi xamoono ci dun bi yaa xaw fiñ xawoono mel nañ meloon def lañ defoon ngir jant fenkan moo soono ndax gaa gën juróom la woon yónneen baak saxaabaam ya ñeenti ñu baa ñoon te woon na ñu naan juróom la woon xomar juróom benneel na leen ibnu abdul asis ka leen royoon ci mbaata fonku leen te tànn seen yoon topp leena juróomi soxna yii itam ñoo gën ci fii ak fa jëm maam asta roy na ba xam ku ñëpp nawloo moom itam xadijatoog faatimatu haisatu asiyatu maryaama ñi ha jël atu mam astu mooy saadisatu juróom benn na leen ba tey ba na boo xëyee da way jigéen ñi baax ñoon te way wayoo ko woo way mam astu dongoy sëriñam bu baax ba xam ne njëriñama bagaani soow yaa njaboot ga xam nañ aw ñamam mooy yaayi mboolem ndongo ya toggoona fon maag togg ya toggoona wal yaa soq ya toggoon na ron maag coono ya te mastafaatal waxtu wa ak wirda waag wasiifa wa te fonk lool walihi wa maam asta jël na raaya wa jigéen ñi xam ngeen royu waaye maam asta jànqay royu waaye xaw leen ci yoonam ngeen la waaye bu leen ko séentu raw na waaye sa doom ji géej la duñ ko ŋas si giil na gaaya sant ñas te tooli diina moo ko ñas ba nooni diina xëy na mes sa doom ji njànq moo musal rooho ci mbugal setal na seen tilim saxal na leen ci ñuy jëfee ndigala sa doom ji moo tax jaam ñi xam kuy Moustapha xam ay waxam xam Seex Tijaan xam ay junjëm xam yàlla nangu ay jëfama ba baay juddoo la suñu maam Abdul Ilaahi ñas na maam asta yaakaar nga muy imaam man dogu naa ta man taraam sëriñ si buñ baay ñaamel ni ndongo ñaani doom sirif say barke luuca moom diqin ma ngir am cër yu xoom xattam ma fati moom la bàyyi wax liir la booba ci lalaay rijaalu xay bu yaa seeni gaay nangul ko bay moo formé daay jamaano bi ab saahiram yombal na mboolee mi miram borom jamaano doogëram dikkam yombal baatinama sa doom ji réew da ñaan nganam ci ñoom ngir def fa ñaan tafum fa hendo ma fanan ni jog ci bekor jog ci ñaan sa dom ji moy qutbu samaan bahrul buhuri kendo nan la moy ci géejam foy fanan lurul ci suufu asmana sa dom ji moy qutbu samaan bahrul buhuri kendo nan la moy ci géejam foy fanan lurul ci suufu asamaan siggil balaalil asman sa dom ji moy qutbu saman walam yaqaf jawra samaan mooy rabbi amnin wa mas sa xuloo ta mas sa xeex weerante sa doon mbiram jàpp suñ maam ja Abdalaay lum ko digal mu dal di def daan na seetil la koy bégal tayit di moytu am meram ma ngir bëgg a lu baax ci moom maam astu jànq raw na leen rawoon na leen ci ay jëfam rawoon na leen ci ay melom sell sellal te jub jubal loolu moo ko may barhaama ñas xam ngeen na bàyyi fu mu jaar ci yaay jub ca lay ñëwee looloo waral mu jaar ci moom maam astu jànqa bettuñu sutura buy malaan fi ñun sàngoo na ko ci moom la hem maam astu jànqa yaayi baay mooy jigéen ji raw ci haddina maam astu jànqa yaayi mooy jigéen ji raw ci haddina moo ñu andil kii haddina xam ngeen ne baay mooy haddina baay jëmmu ja mooda haddina bopp ba mooda Afrika gimmeñ ga mooda Sénégal làmmeñ wa mooda Gambia sidi baara moo ne alal borom baati gayndeem ga buleen xëccoog baay yoonu lislaam Eliman Njaay sidi baara mane ba tab rabbu jël nab yalta baram du seen maas fam leen kowe demu leen faa nooni baaraam ma ne ku manut baleen ma du wax baleen ko dangeen réera réer halkande ñeel ñi bañ sidi baaraam ma ne mburu lakke wuñ ko foon rekk wattu leen perte yaari yoon li wut balaa fengeen na dem fa baar amane mburu mu ñooy lakki foon moo da wir daw neena neen baada man tatay ba moromam nooni baar amane sayqi siyooqi ñas baay sangan gaako seko esa kamburin ja doy na kiimaan sidi baar a mana baye saalaay bindee leetar ba yónnee ko baraam ne jumaa jañ doon pare na sidi baar a mana ye saalaay ibnu limaamu laay mu ko naan pareel ñëw baay jumaa ji yaa koy daloo sidi baar a mana ye sanko naan yow laa wulu ñas yaa ma koy dalool bàyyi yaa suñ jiit ca malool alaa baar amma ne baraama daldi selle tarban yónnee ko esaane jumaa ja ca di ser dañoo sidi baar amma ne esaa lay dajale waa tanaan teeru leen ko billaayu xutbu samaan dana ñëw tey sidi baara manee sanko naan teeru leen ko nag tanaan yaru leen may leen ko teggi hin ya ca war sidi baara mane bara manko naan alaa jomar kan pareel waayi kamre ndasuriina fen sidi bar mane alaajo mor naan ko barab bu suriyun ñas neuf kilomètres la bu di sirju bi nay tere gañi baara mane alaajo mar kanam dakaru, yónne sandongom ya abor jal na ngeen ñew sidi baara mane alaajo kanam dakaru. woona saforam sa sol en essence pare ñu dem ah. gañi baara mana safor sa daldi dem sol essence ñu wut ci salendar ya korno sidi baara mana ba baaj rentré sa coussin ba lewe ba naan Cheikhu Tidiane Cheikh ya naan huwal haqqu sidi bar amana auto yaa ngay yol ni ndox toppante bulu boulevard ya ñi ngay korno sidi bar amane bañu gaare marsa sandaga man dama ngele man da mbindeef ya nga sidi bar amane mbindeef ya nga ngëb Danan frenel de sa for fayal gaaw ñu siyaare soppe baaraama na ñu ngay nuyu di ko siare danan naan lii du neen kilay xutbu samaan bar sidi baaraama na ñu ko naan sey xisiyooki ñas baay bay ñas may ñu ak ñaan yow la yàlla tànn ngay sidi baara mana ñu ko naan say xis ñas baay baay ñas may ñu ak ñaan yow la yàlla tànn ngay njiit sidi baara mana jëmam ji wegu jaak laa biir ga melaw kakataar de mu ngay muñ tadaleen ñaanal sidi baara mana alaa jomor naan tallal leen nag te wax ne amiin jéggal ñu or bi jonna gañe baaraam ma wa waa rang fu juma jang xalal ko ayon sandar masa saa ñëw Dakar de Sidi baaraam ma ne ya sàllaay mo force bëkk neeg bi talen leen li fablen pilihan yan bi posel sidi baara mu ne ko bàyyaa woon abol basar maam aadama abolan bi yaay baatam yam doon jéggaloo buur ba yow la baara maana yow buur bi joxoon ay mbuutam ci réewi Namruus yaa fi joxoon Muusa ay ndam gëm na baara maana saami daan way dey ci mbooti bar ama la daan jëlee mbooti docteur gëm na baar am man a yaawan Suleymaan ay mbootam ba mooy xëy di naaw moo ki jineem njanaaw yey wayyang leer na baar am man a ba daawud neex baat ga te di gaam ga mu yor la yaa ko suukar Sidi Baara mona tajiliyaat yooya jàllo nañ am na yu beesaat xolal jawharatul kamal gis fa baara mana ayni rahmati rabbaniya di barhama haynul haqi jami suñ jamme baara mana mooy talhatul haqi bil haqi mooy kan si laxsam te ku ko weddi torox xalaku maa ngi ci baaraam mu ne ko man de xàmmi naa sama waaji yaa fi dikkoon daaw mosoon nga fi ñëwi daaw jéega yaa ngi baaraam bu mi nga sol bokkul ak mooma mooma gën a weex moom nga saloon xatam daaw jéega yaa ngi baaraam man ren ji nga ñoo dal di sol mii nii yaa man ren ji nga dal di sol mii nii buris bile gaa yi lambu tuy wey tegi man waaye wolof yiree lay xàmme loolo alak ami ami sodan loolo tax weddi baaraam man laaj naa ko bay seeku na moom la moo fi dikkoon daaw laaj naa ko baay Ibra Faaliton moo di baara mana laaj naa baay Asan sama waaja mu ne waaja ngoog de tafsir Ousmane Ndiaye baax na gëm na baara ma subhaana man basat tal arda sant leen bur yàlla baabu laay fay na sooda sant leen buur ma dàq leen ci seen xol yi moo yóbbu iblis jahannama loolu wóor na gaañe baar xama iblis sëriñ loon bu doon jàngal ñooñ asamaaw riyam nga ko xala gëm leena sidi baaramaang kuyal koobo jàkk du ko fan moodo jamburus mbot ci xol bu suufe lay taa sidi baaramaang addunaak lu doodi lu ci biiram ku ci topp sa nafsu bala nga di rëccu gëm leena sidi baara maang addina baagab caax la duy fañ mar dangay rot ba dee muy tuuru ngay rëccu gëm na sidi baara maang sàkku leen xam buur bi leen pooseel machine ngeen da dox saakoom neen du taxaw gëm leen sidi baara maang sàkku leen buur bi déndu suuf si wii sa asamaaw dun bi kenn ndoor la gëm si di baaramaam laxasaayu lépp bu leen fàtte yàlla gaañi wàcc gaaw na hay nu loxoloom feeñ na soodaan si di baaramaana yoonu faydu ku càqa suubu melal ni ku dee niw bu yëngoo fan wa jeexul sidi baar hammaam yoonu faydu ku càqa suubu melal ni ku dee niw bu yëngoo fan wa jeexoloo sidi baar hammaam niw bu dee bañ taxaw di ko tàggee muy jóg di ti suuli dóoral mu dem tool ya deewul sidi baar hammaam niwbude bañ taxaw di ko tàgge muy jóg di ti sooli doral mu dem tool ya deewul sidi baarama ala nagge maaya ngay naa ko ndaw ku yurmini kangaado sellata maaya sidi baarama gongo dari sappo rimata ngar njeen fa baraam ngaren njeen saare kootena galle ɓara mane wona sukko wona mawɗo ko allah tan woni ɗo iman jehen saare koten galle ɓara ma wona sukko wona mawɗo ko allah tan woni ɗo iman jehen saare koten galle ɓara ma dalen weycindigal tadi muñ lante wattu len yar jammi maj sob xol ba ma jóob sidi baarama heg ci garab ba hagg ca xob ya bàppi jëm suuf yal na xut bu hin ñu loolu sidi baarama heg ci garab ba hagg ca xob ya bàppi jëm suuf yal na xut bu hin ñu looloy gaañe baarama heg ci garab ba àgg ca xob ya bàppi jëm suuf yal na xut bu hin ñu looloo sidi baara man na war ci gilem ba ñopp na askay nga wàcc war mbaam may suubu ko jikoo gamoloo sidi baara maam demba hadratul qudsiyu dëpp dellu ci xaam wala hawla booba maj soob sidi baara jaabi hadratul qudsiyu moo da sidi barham jaam ñi nara texee ñoo gëm Sidi Baara maam Ibrahima Diouf melal ni ki sànqaane ci bàkk barhama temtem gis na ninke nanka Sidi Baara maam warlu naa nga jox ma xelam woyam ma mel ne reeteet mbaa nga jox ma bato nga waaw Sidi Baara maam Sidi Baara mën a saabam yaa nga ni ki nag tóotóoram yaa mu tàmbu geer waaja xeexoon Badar Kubra Sidi Baara mu ne bàyya toxal lëndëm dàq kii yaay sirru butuuni borom nguur gi màgg sidi baar am na bisub ko ndox ba ngoon ma fa feeñoon ba saaba yi muuñ waaja yaram cus ko ko gaay sidi baar am na jarama day naa boo anin baara doomi Abdullahi yaa fi xam la ilmu baatin sidi baar am na ismullahi la azam ak la ko doxloo booba siroko arlas rijal bi doomaas sidi ba am na gouverneur l'islam bi ya campagne bari yewi ijaas foras bay la ya sidi ba am na abubakar siddiq kay mel ni alsan musaddiq doon burtu ju ñu sidi baaraam ma nekk madina ngay teeru njool makka rangsaleen nit ñi dëggoo sangu bu xaasin sidi baaraam wa na aleyka salaamu nañoo dellu nuyu borom faas sadratul bayda bi doomaas sidi baaraam wa na hamiidu majidu ya rabbi ila jasma fa يا sadiqul الأمين Tadi baramu alamul musawan pengawaci Baik dari apa banda Dapat hamkun jaya ulat tanah Sidi bara mana cair kesep Jahai Naka cerabisang mabok Pemarabu ya ibu pandorfai sidi baaraam moo ne baqoo bayaat ko mu li jas baara sal ko mu yem ci mbaam dungu wana ko jamaahim sidi baaraam moo ne ko mu li jas baara sal ko mu yem ci mbaam dungu wana ko jamaahim sidi baaraam gaynde ñeloor gi yaa bari tiyaabo ndaw ku la biir sange nga ñu maawul xale bi sidi baar xam mana gaynde ñeloor gi suni baarama gaynde ñaloor gi yaa bëri tiyaabo ndaw ku la biir sange nga ñu maawul kay bi suni baarama na jant ba fenk na maxrib xam na yombul mbaay jënd drapeau l'islam suñu baara man yàlla ñu jagleel ñuy faree kaw te dootuñ faree suuf sëgg si yuuxi bàyyi ñëw na suñu baara man a bàyyi doxla jëla moo moo xaybu xajul ci duniyaa alam bi ko garga lay laa suñu baaraam mara doon jannaa boo ko xëy bi xajul ci dunya alam bi ko gàdde lay laaj suñu baaraam mën a yàlla yónni suñu sawe tas bi ci réew Sodaan Seydil Wujud bi wàcc na di baraxam ma ne baraama ñas boo ko xaybu xaalam ba mooy jaar malaaka si karam ga di baraxam ma ne baraama wàcc fa alamul oliya ndaw lu leer a leer malaaka si kar fetal si di sujud kita baraam ñu kalan galan tanaan dem sidi baraam mane baraam na leen naa tallal leen ba ma ñaanal leen déplacé di bara xam ne xatam juma biddiw ba ca wàccoon asam mau kira keroog lañ ñu sidi baar xamane bitibu bay sawel sunu ruhi warna jabrul huda fay nasran sidi baar xamane bitibu banganan subhana rabbi alama mom la subu bahru malakut sidi baar xamane bitibu banga fatte taymu àndal ka yu àndal te yàlla ngi ñëw wan ne mooy buur sidi barahama ne guddi ga ca pasi tuure loola day sama ndaay kër yow may pasuma sidi barahama ne njaayan kaddu ja day sama ndaay iya, yow may pasuma bi yónnen waree bu rax jëm saam sidi barahama ne fàttaliko sidi baraman baraman raman tullinin ba ma dee ak moot jibril damay dellu malakuut sidi bara xam ma ne bay aji Babakar nga naan ndongo yi tuub leen bu mu ñu jubee dañoo bëgg a dem sidi bara xam ma ne la koo dalee minuit jamaan nag ba ca waxtu gee yaram ba ne ba hoo malakuut sidi baraxa ma ne sëriñ mbay mi doon Babacar Siddiq dal di kaddu moom kaddu gaada nuuru rahmaan sidi baraxa ma ne saxoo leen siyaare tada mokkal madina kër baay gundi du ngeen dellu naasoo sini baara mana waat ci ngay ba ñuy bëgg xalku nañuy di yoon leen jibril bombardé leen bañ jeex sini mana amu samoon ba ñuy bëgg xalku lañuy di yoon leen jàpp kilimam gaay noose ahlul inkaar yaay doomi ñetti yoon bis ba dara xam ma ne sunu yoonu kër laayin fatim jax jox na ma xaal bàyyi gën ca doom jamaahim sidi dara xam ma ne sunu yoonu kër laayin fatim jax jox na ma xaal bàyyi gën ca doom jamaahim sidi baar amma sëriñ joojo kër mbango ñoo la ci yàlla muy di sax biir ñu gëm Sidi Baara Maana Sëriñ Jojo Bakka Cam kër mbango ñoo la ci lañu fekkoon moom ba canta mel ni day gu jot bopp sëriñ Baara mara diggante kër kër gaar kër laayam lañu fekkoon moom ba canta mel ni day gu jot bopp sidi baar xam ma ne saman maa nga firi bangor ba jëm ci ca ñoom bàyyi gëm ca doom jamaahin Sidi mana saman mangga pri banggor jam cicanyom bayo gel cedok jam ayam Sidi mana bakang konan nijay sering wahul baramanguti jam jeman temat tendanggol Sidi mana bakang konan nijay sering wahul baraam maa ngi tiim jàng man tama dondongo siri baraam man a jàngal ndeen sëriñ jooja dal di siri baraam man a baraam fitti marta bamba bam daaru jaaxaan baaye jël ca jamaayam ارحم لا اله الا الله لا اله الا الله nañ jàpp lu de ci baay ndax yàlla tam ni ci moom yàlla bu ñu fase gile góor si di barahama mbugal mu foor mi ci biir bàmmel ñi koy xilaan naam xanaa dañoo yor ngërëmal ibara mbugal mu toor mi ci biir bàmmel ñi koy xilaan naam xanaa dañoo yorul ngërëmal sibi barahama ibu balaa yàlla loola jox la passeport si di barham bu doon jaay wir daam de bon dana riis gaalam gi soxlawut passeport si di barham bu doon jaay wir daam ndekkoon dana riis gaalam gi soxlawut passeport lu ñuy giiroo banyak sapu-sapu hadina sapar baraya kita baisim nasr nyutaria ya, kololungi giro Senegal punya rayon baik nopal nañu komandan bay kolut punya kejungur setu dari sore Senegal akan di bëyoon baay noppal ba xolot fu ngay pëcc nguur seddu siri baraam moo da ki nga xam ne moo da yambul baay di laayi nguuram kuram di ko weccee nguuru marjaano taqam wurus bunte xaalis ak jamaa yi ci biir tambur misri yi ci biir sidi baraam moo di courant day jox leer lépp mu ci xam ak leer courant damay leer lépp muy tourné muy kaa tàkk bindi ci leer borom leer ka jël na leeram moo di baraam joxal mbott ci ci biit biit du tere ñay waay naan lamp courant ngelaw du ko fay moo di barahama courant ba jaar na ca biir suugoon taxal bambukaar dëpp taxal ba tamaar delloo ci courant ba jaar na ca biir suukoon taal ba mu gaar dëppoo taal ba tamaar delloo tibil ko si Abdou Diassé bambu gaar Abdou bi tey ba tamaar yaa leen di ak leer bu leen xañaam bu leen ko def mu ji ku ci muusam dangay leer jox la sa wetaasu ibu juum ko def wuti ku ci muusoo dangay farak baay baraamaro sarax leer jox la sa waaye nag da ngeen ma ñaan Kenyang kenyang kenyang yàlla kau, hin di bar amma da ngeen añaan te dina fekk kañaan ba kon halal na leen di bara amma ku yàlla yi ma kau dee xal ko mbaa mu ma jëm jëlandam soobu ci leer ku yàlla yi ma balaay dee xalku mbaa mu walaakaana jëmm ji lëndëm ba soobu ci leer sëriñ bara ku yàlla yi ma ndongo yaar baraama xaay na ci ñoom da leen di roose ak leer yi jëm naan ma di yàllaaw kabar ga dal na ca biir kuusi si kaa sa bawaana arit su ndaw sa naan ajaban si di bara amma Kumanda komparam tu komandi jogile nutata kigi meu yanga kusi pai kandar gede itu Kumanda komparam tu komandi jogile nutata kigi meu yanga kusi pai kandar gede itu pai nutatan jalur jasi tabatai kubur jalur bos jural sama ulaf ibu Baay Ñas jëlut katal jëlut jaasi tabatay gobor génnut poosu njural sàmmahum fi mu ngay sikarloo Abdoulaye waladul xaaj ma ca gànnaar mu ngay sikarloo aare sunu sunu ajaban sunu baraham Abdoulaye waladul xaaj ma ca bay xamam morom doon maas tabem ga jiggi no yoon xolof sa daan nañu lépp déggal maram dul ma na ko xool na ko ba kontaan tàppe juróom ñaari yoon jox ko noonu baraam xalku ngeen saytaane dëgg na ci yéen billaay ba ngeen dëkkee jéeg iblis ci biir noo ne baraabal kunde seytaane dal na ci yéen billaay bi ngeen dikkee ji ibli ci binaare sëpër bu salmaxa ginne jàpp ko mu dof tëb di conducteur ku dugg ci otoom gaaw a dee fanaane dee leera bu salmaxa ginne jàpp ko ni gën leen raw kana li sayd min karamati qawmin bayratin باهيرة داد يا سلمى طريقة إمامنا السرمنا تسار أو يأتي بها دلقا من بحال منو أن عبدنا مالك فرق دورا آخرا أرى عصريا منو أن قال فات بنانا منو أن قال رب حال ربنا سر سيدي أمين من جمعة أو من غير سواء قول شيخي كترجمة لرسول دون إبد ولا سبيق فهو عائد من غري لا لا يوم جمع ثم يغال عليه سواه العصر تاب منكم أناو إنه لا إمامكم ثم لا نال منهم ما ناله الكرماء ستة من مئين لو ذي نشار أردت من هذا أقوى الأولياء العجب قد أسس قاد أصحابه الأصلياء قدم شيخ وقعق بقوم كل عصير ثيابته قضاء زاويات الإمام زلد قبل دون شك وليس فيه نداء من كرامات وتراكيب الاسم كيف يشاء دفت الكعبة شريفة بشيخهم عديدا يا بلاد العطاء قصد الشيخ متابق لما أخبر الشيخ ما به ابتداء واستلام الإمام كان أمينا فيه الأمر القضاء وقدر كم له من إقاسة لقريب كم له من سقام الدواء كم أعصى الإمام السوقة قوم كم أذلت بظلمه أمراء كما كان سارعا بجد فمدت نمولها أرار تغبر النصر نفسة شيء عمري تلك كف في لناس سواه سانو لو عن معادنا صعيد وبسيط الملوك والعداء دعوة القلب مثل باطل شيء دعوة الخير دونهم أنواع يرسق الله طول ما رأتهم رأس سيد على الدول قبر بساته به البرهاء حرك القلب دائما بازدياد لارتقاء ما نعلم الاولياء حين صدر حرارة قلبي فيه قال يطقى لنا من أسبابها ثم قال إمام ليس يسيرا سالك كان عندنا النساء نساء ليس لا ينتبه أمناهم ثم مات قد الفريد بذواء للبس بقميصها قرفاهم ذلك العام عام يذكر به أيام أتى الإمام جلاؤه قد سبس النبي المصطفى قدمي فات तमाम yii may goxi may li ngeen janoon ci xàll bi tarikatu baraama doy nañu digee mayam rëy fay na fa doy nañu digee jinee diyu saasliyu bi jiiliyu baraama sa na leen te ko bay yow suuba jii ñeneen ti jàppal ma tariqatu barhama lit nappal ma bu bikkanoo barada yaat te ñaan fa ma te ñaan ca bépp xaajo ya

ma xam a faw dootul dëñ may ñaanale suñ a ak dëpp taalibe fu mbat nekk daa iman lu taalibe mu dem xarit mu dem julli te moom bañoo yàlla mosal ñu tëj ngeen ñu lu dëggul di wale nekk Madina Barama yàlla bëggal ñu ca ñu ni bañ waane ne sant tey topp ci yoonu baay man nag tabe mbooleem jikkoom yu baax yi jikkoom yu baax yi yoo xamar nellal ko la tuuma ci ndegam xamar gàttal ko moo doon si nun ci jikkoom jàngal ma mun ta seen aayaat ba nga xam ne li ma la wax topp siiratu rasul ba